وسلم تسليما صلاة وسلام وبركة تقود بها لشيخ الخديم القائل فاز الذين حافظوا على الشيام شهر به أغلق باب للأيام mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna moo leen di nuyu te di leen siyaare di am yéene dikkaat ak yéen ci lenn ci jataayu sëriñ bi di ñaanal Cheikh Muhammadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi yokk ba mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul te mu ànd kook mbooleem jabootug sëriñ Tuubaa gépp mbooleem kilifa diine yi ak jullit yi ak taalibe yi di jaajëfal bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp jataayu sëriñ bi waaye di siyaare sëriñ Mouhamadou Ngom ñing ci liggéey bu am solo bii nga xam ne mi ngi koy def joyal ko ci Cheikhul Xadim waaye di jaajëfal mbokk yi ci weeru tedd màgg wi nga xam ne ci lañu nekk di weeru koor di ñaan sunu boroom subhanahu wa taala ni ñu ci tàbbee ci bismillahi rahmani rahim ñu jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin tey ñaan sunu borom subhanahu wa taala nangul sunuy koor ak sunuy jaamu yàlla ci barkab sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaran lahu moomu nga xam ne fi mu tegoon weer wi kawe na lool te ay jamono mu fekkoon ko ci barab yu metti waaye teewutoon muy teeru weer wi waaye di ko tagg di ko tudde sax gan gi nga xam ne moo gën ci gan yi nga xam ne day wax ne buy dikk rekk fu mu ko man fekk mbégte lay dikk ci moom waaye itam indalay xiiwal di wax ne gan gu mel noonu day ku ko am war nga koo yaatal war nga ko itam dalal ak jàmm te bañ koo wutal fu muy yem moo tax sëriñ tuuba qaadalahu allah maxtaaralahu doon wax yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi kon yàlla nanu yàlla fayal sëriñ tuuba qaadalahu allahu maxtaaralahu kon ñu ànd ak yéen ci lenn ci jataay yi sëriñ bi bismillahi rrahmani rrahim sëriñ tuuba qaadalahu allahu maxtaaralahu mas naa xëy wax ne nañ ma woon muusa mu mag ma ñu daldi woo ma ñu jàpp ne moo fa njëkk te moo gën a bari ay at mu ne waxuma mi Muusa sama moom laa wax fekk moom mel ni ku génn ba mu ñëwee sëriñ Tuuba xaadalaho laaxu maxtaaralaho wax ni mii laa wax ndax Muusa mii moo denc wax sunu boroom subhaanahu wa taala ci ab dënnam muy sëriñ Moussa Alima Gueye radiyallahu taala anhu sëriñ Tuuba xaadalaho laaxu maxtaaralaho jox ko am mbind ube ko ñaari feggu ne ko sottil ma ko te bul xool mbind mi booba kenn kuy nit fekkwu ko ca ëllëg sa muy jébbal ci sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu mbind ma fekk cheikh ibrahima fall toog ak sëriñ bi bi sëriñ muusa alima géy jube sëriñ bi mel ni ko xaddamiku maanaam ngir bëgg sëriñ bi yëg ko sëriñ bi xool ko ne ko yaa muusa aqbil wala taqif innaka minal aminin mu yëg ci toog ne cell sëriñ tuuba xaadala ko laaxu max taarala ko ne ko ndax defe nga ko nama la ko waxe woon mu ne ko waaw cheikh ibrahima fall siggi xool sëriñ muusa ka maanaam sëriñ muusa alima géy ne ko yow muusa muus nga lool de moo nu ñuy binde loo mësula gis mësoo ko dégg te juumoo ci sëriñ muusa alima géy wax cheikh ibrahima fall radiyallahu taala anhu ne ko yawit noo def ba xam li ñu ma doon def loo te fekke woo ko kenn nettaliwu ko itam wér na lool fi ne sëriñ tuuba xaadalahu laaxu boo toogeek moom sag ruux day dugg ci ak ruuxam mooy tax ngay daldi xam lu bari ci lu muy xam ndax ruux moom dara ëmb ko waaye bu nekkee ci yaram wu setul du mën a xam dara loolu moo tax sëriñ tuuba xaadalaho laaxu maxtaaralaho di wax ne toog ak nit ku baax day raxas ab xol te da koy setal yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa am na ku mu waxoon ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum ni ngeen di mel bu ngeen nekkee fi man bu doon luy wéy na ngeen dem bay gis malaayika yi alayhimu salaam ba tey ñaar danañu bokk lépp te sore lool li koy waral nag mooy lii sëriñ tuuba xaadalaho laaxumma taaralaho wax te moo di sikkar rekk ndax sëriñ bi daa wax ne muusa mi nga xam ne daa ëmb waxi sunu boroom subhaanahu wa kon ci tudd yàlla lu bari ci la ñuy rawante ci lañu sëriñ tuuba xaadalaxu laaxu maxtaralaxu itam di gën a soppe ak yàlla subhaanahu wa taala gis nga sunu borom subhaanahu wa taala bi mu nuy misaal naafiq yi wax ne laa yaskaruuna allaha illa xalila sadaqa allahu ba tey bi muy tagg jullit yi daa wax ne yaskaruuna allaha fi ma waqaudan wa junubihim sadaqa allahu alazim sëriñ tuuba qaadalahu allahu sunu borom subhanahu wa taala may na ko du bëgg ngir lu dul yàlla du bañ ngir lu dul yàlla subhanahu wa taala waaye bu ñu seetloo ñi mu daan màggal ak di wax ci ñoom lu rëy ñépp ay jàngkati alxuraan lañuy doon daa ko jàngale te farlu lool wallahu aalam sëriñ mbakke buso radiyallahu taala anhu mas naa taxaw ñaari doomam sëriñ xasan ak sëriñ baaxira radiyallahu taala ba seen alxuraan rafet lool ñu bind ko jàng xam-xam ba dañu réer mu yebal leen ci sëriñ tuuba xaadalahu llahu maxtaaralahu ngir ñu jébbalu te soobu sëriñ bi nattu ba xam fa ñu tollu sëriñ tuuba xaadala ko laaxu maxtaaral ko wax ne mbàkke buso raxas na ay ndabam ba mu set amul lu mu ca def mu jébbale ko ngir ñu defal leen ci dara waaye danaa ko ci defal lu mu xamul ak lu mu amul wér na lool sëriñ tuuba xaadalaxo laaxu max taaralaxo nee na daa am ñaar yu ngeen mënta ñàkk ma am ñaar yu ma mënta ñàkk ma bëgg ngeen defal ma ñaar yi ma mënta ñàkk ma defal leen li ngeen mënta ñàkk ana li ma mënta ñàkk mooy lan moo di ku ma nekkal Tuuba di dox sama diggat daay yi li ngeen mënta ñàkk moo di mucc ak jariñu siiw na lool wallahu aalam mbokk yi noo ngi leen di jox dig daje ëllëg insha allah ngeen di ànd ak seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna ci jataayi sëriñ tuuba xaadalahu allahumma axtaaralahu yàlla nanu sëriñ bi doole dimbali te def ñu ay dëgg dëgg taalibe te boole ñu ci boppam yàlla nanu sunu boroom subhaanahu wa taala yàggal te defal ñu ak wér akuk man akuk jëfe weer wu tedd wii nga xam ne mooy shehru ramadan al mubaarak bi nga xam ne ci la sëriñ tuuba xaadalaxu laaxu maxtaaralaxu doon wax ne faaza allazina xaafasu ala shiyam shahrin bihi ughliqa baabun lil iyam sëriñ tuuba xaadalaxu laaxu maxtaaralaxu nee na ñi nga xam ne danoo wattu weeru koor maanaam jëfe ko jëfe li leen seen borom subhanahu wa taala digal wattandiku lépp lu mu tere ba waxtu weeru kor wi ñoom day taxe nañu ndax weeru kor woowu ci la sunu boroom subhanahu wa taala di tëjee bépp bunt boo xam ne nit ki da ciy jaare ngir mën a def ab safaan wér na lool wallahu sëriñ bi sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey